justement ça nous intéresse euh, bi mu décidé dem dialogue euh, un dialogue d'ailleurs qui a réglé euh, son son sort et qui avait réglé le sort de de de Karim Wade. Hmm. da ngeen ci am des positions Karim Wade da ngeen ci am. Karim Wade fu mu mujjee. waaw d'accord venir mais da ngeen ci am des positions très tranchées très radicales. dem ba yeewi askan bi ñu génn nu mu tudd nu mu tudd taxawu Dakar taxawu Sénégal. ñu génne leen yeewi askan bi parce qu'on les a accusés de de concussion et de collision euh, avec Macky en vous basant sur la charte euh, de de de, de yeewi askan bi. mais qu'est-ce a été fait? et à plusieurs reprises Ousmane Sonko s'est prononcé sur la loi d'amnistie. Mmh. quand oui, il était non. voilà en mm-hmm. dix disant moom nekkul ci ay mbiru loi d'amnistie. Mm-hmm. Ousmane Sonko mas Euh, moom damul dialogue ak Macky Sall ba teg ci euh, loo xam ne xale yi ñu ngi koy utiliser di ko di ko di ko di ko di ko di ko ko di ko ko kaañoowee hmm. euh, politique nag bu fekkee ne da nga cohérent peut-être que ça peut se comprendre dans le contexte actuel ngeen am gêne accepter ah mais man yow vraiment bu ko dégg une discussion ak Macky yow c'est que bu ko ah, dégg li mu la sànq. ah maa ngi dégg li ngay de non mais ça fait que. <laughs> maa ngi dégg li ngay wax de amuñu gêne pour déggoo la ma la wax ñun amuñu gêne bu discuter ak. Eh, li am nii yëpp amul ci Mali Faro de. waaw mais xam nga xam nga tu sais tu sais sawaruma sax di di di tudd ñoom Khalifa Sall mais euh, ñoom xam nañ Ousmane Sonko. mais ñoom xam nañ politique tamit mais non gënuñu xam politique. ah ñoom yàgg nañ ah, fa lañ nekk ñoom <laughs> fa lañ nekk ñun fa lañ nekk kañ lañ juddu ñoom commencé politique dañ koy taggee seen bopp ñun on est depuis x nombre d'années c'est bien ñun on est depuis dix mais ils sont relégués te si may mun a Sonko dafa baax quoi man dama lay wax dama lay wax tey dama lay wax toog nañ en comité très restreint cinq personnes euh, amant local yi man ni Ousmane Sonko Dakar bu ko jox baatu média daf ñuy trahir lu baax la ma lay wax daf ñuy trahir parce que waxam stablul te il a un budget très important daf ñu nar a trahir avant les locales avant les locales c'est devant témoin les gens yi m'entendent xam nañ li may wax nii devant témoin xam nga la Ousmane Sonko à l'époque président Ousmane Sonko bi ma insisté quoi parce que j'avais mes éléments teg ko ci kaw taal bi non xam nga ni ko xamante ne on chemine te vraiment il est là il fait son boulot muy góorgóorlu ba pare maanaam couleur quoi affaire couleur la doon teg quoi te li ngay wax nii léegi nii ne en politique tout ne pas être cohérent tout ne pas être que à un certain niveau les erreurs se paient cash cest à amul ci yenn affaire mais moom ngëm-ngëm lay demee c'est-à-dire que dafa dafa dafa sincère te aujourd'hui ñu bëri yaakaar loolu erreur politique loolu noonu erreur politique on a l'avantage d'avoir montré au public sénégalais que ne ñun ji nañ kii teraanga ji nañ kii ngor jàppale nañ ko mu falu mais il nous a trahi te échéance dañoo liggéey pour trois échéances locales législatives ak présidentielles qui a le meilleur profil entre eux c'est Ousmane Sonko donc du coup li ñu tegoon dafa am revers c'est-à-dire tu mais da wane waale sa bopp ci askan ñu bàyyi la tu as mandat de cinq ans tu le tu dégages cest à que fi mu nekk nii ñoom ñooñu xam nañu ils ont trahi te ils perdent l'électorat. ils ont trahi qui. ils ont trahi Ousmane Sonko ils ont trahi le projet Yewwi Askan Wi. nous avons xam jeexal feneen ñu par contre on a doté le le, projet Yewwi Askan Wi en quoi faisant président n'a pas pris les parrains jox ko nii de jël parrainage bu gën a am doole. on est certain d'avoir doté Yewwi Askan Wi jël ko xamante ne moom il est de Yewwi Askan Wi pur et dur on lui donne douze on euh, treize députés pour valider sa candidature nous on a doté Yewwi Askan Wi fi ko ñëpp bàyyee génn dem defi seen ay affaire nous dote Yewwi Askan Wi c'est-à-dire que ñun on est très logique et cohérent dans ce qu'on fait même que parfois on peut y laisser des mais cohérence bu extraordinaire lañ ci am côté boobu laa lay waxee ne ces gens là qui s'agit di wax man dem yéeg mu génn mën na ko président mënoon naa la mën na ko Khalifa Sall dinañu trahir wallahi azim ñu may dégg wax ko samay éléments yi ma am pour na xam naa ne fii jëm fii jëm dañu am ay intérêt ay convergent te Sonko dafa occuper espace bi yëpp ñoom benn benn moyen de suivi la ñu amoon pour ñoom mooy il faut ñu créer clash xaw a soof imagine le jour bi ñu war a juger Ousmane Sonko nit toog naan le mensonge doit cesser di ko attaque koo xamante ne tey jii nii daanu wax deux phrases tudd Ousmane Sonko c'est kii ça. Barthélémy Dias Khalifa Sall aussi yi muy def nii yëpp tout ce qu'il a fait par le passé ak yi muy wax nii yëpp sérieusement ça le ça le rabaisse quoi parce que ñun dañu gis si moom image yu nit ku nit ku nit ku nit ku nit ku quand même comme genre Amadou bi rek cest seen lu ñaaw du fa du fa du fës quoi mën nañ nekk def suuf par contre mais seen lu ñaaw duñ ko exposé. tey boo demee ba naan non ku nekk mën ngaa xamante ku nekk mën ngaa réew di ko wax jeunes yi di ko dégg di la kaay yooyu c'est pas. mais mais mais dama bëgg a xam quand quand quand vous dites que Khalifa Sall a trahi Khalifa Sall kan la trahir ak lan la def. il a trahi le projet Yewwi Askan Wi. non comment. non mais ni mu génne Yewwi Askan Wi ak. ak ah, comment Khalifa Sall ñu dàq ko. non non xam nga xam nga. mais mu génne Yewwi Askan Wi mais mu na mais mu na quand on a été initiateur d'un grand projet comme Yewwi Askan Wi comme Yewwi Askan Wi c'est-à-dire que membre fondateur trois trois trois émissions yi. c'est-à-dire que mënoo ñëw xëy jour passer outre tout ce qui est protocole qui avait établi am say accointances dem toppatoo ko créer say rencontres la dem toppatoo say affaire bàyyi quelque part et puis quand ils ont été euh, euh, au dialogue avec le président Macky Sall qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont travaillé pour que pour recaler Ousmane Sonko pour que Ousmane Sonko ne soit pas candidat. comment ça travailler pour le recaler. non mais mënoo c'est que on va pas prendre toute l'émission di wax ci. non non non non dama bëgg nga expliquer ma comment ils ont tra pour le recaler lors du dialogue. toutes ces modifications a eu sur le code électoral ne visaient qu'une seule personne muy Ousmane Sonko. xam nga moom à l'époque ak euh, Karim les gens avaient introduit le le, euh, le mot électeur pour Ousmane Sonko tout ce qui est euh, intervenu euh, a été fait pour pour que Ousmane Sonko ne soit pas candidat. Non, mais, mais nous mais nous. au contraire nous. le dialogue a permis euh, de lever ces ces ces ces, ces goulots là. c'est-à-dire ñoom 2018 la ñu modifier le le le le le code électoral. Euh, introduire sine ne pour être nu mu tudd pour il faut être électeur et éligible. Mm. Et c'est sur cette base-là qu'en en Khalifa Sall et Ousmane so et, et, et Karim Wade ont été recalés loolu dindi nañu ko ci dialogue boobu la ñu allégé euh, le le le le parrainage ci dialogue boobu la ñu la ñu assouplir euh, ah, beaucoup de conditions pour aller vers des vers vers ah, ah, des élections en ajoutant une nouvelle option quelle option l'option de pouvoir se faire euh, parrainer par des élus waaw et treize députés yoo xamante ne xam nga ne ñoom treize c'était bien non ou bien oui, oui c'est bien pour eux c'est bien pour eux c'est bien pour eux amul problème. mais yéen vous l'avez utilisé aussi. non non on l'a utilisé pour le donner à d'autres personnes. c'est bien mais yëpp c'est bien mais xam nga lu ma la bëgg wax rek ne la nous là où les gens ont trahi ont mécru au projet Yewwi Askan Wi nous non seulement nous sommes ancrés Yewwi Wi ah mais aussi toutes ces personnes là qu'on a pu aider sous a pu poursuivre notre collaboration jël doté leen ba ñu xam doté leen tey bu teg leen candidat c'est-à-dire que loolu kenn mënuñu ko dindi. xam nga dafay am loo xam ne moi je l'ai souvent dit qu'en terme de partenariat politique mhm. Ousmane Sonko sait faire preuve de générosité mhm. et à l'époque on disait même que c'est de la naïveté parce que qu'en politique on ne peut pas être aussi généreux mhm. et lors des élections locales lors des élections législatives Ousmane Sonko a fait preuve de générosité Bambay toog na fii remercier Ousmane Sonko euh, pour tout ce qu'il a fait euh, bi mu ci législative yi à Saint-Louis Ahmed Aïdara toog na fii remercier ko am na yu ñu ci waxul sax nous on a vu comment Ousmane Sonko a porté et propulsé Yewwi Askan Wi mais si on en revient à Khalifa Sall ak Barthélémy aussi moi je vais vous mettre des faits euh, du factuel euh, Barthélémy Diaz nee na ba muy dem di en, di di di di enclencher waxtaan bi dialogue bi ak Macky Sall xalifa Sall Ousmane Sonko était prévenu benn Khalifa Sall. Mhm. Khalifa Sall moo moo membre fondateur Yewwi Askan Wi la. Khalifa Sall bi mu nekkee Yewwi Askan bi on l'a vu même se se se mettre un, un peu en arrière bàyyi Ousmane Sonko ci ci ci ci ci ci ci kanam ba. opinion bi ak ay militant am doon kaas naan il se fait trop écraser Khalifa Sall waxul ne day génn yeewi askan bi dafa xëy des partis réunir def communiqué génn ko et Khalifa Sall a subi tellement d'attaques tellement d'attaques il n'a jamais répliqué une ou deux fois laa dégg Khalifa Sall euh, euh, de manière enrobée oui, c'est-à-dire quand vous me dites que Khalifa Sall a trahi moi je veux que vous mais, euh, me comment il a trahi mais heureusement que même tout n'est pas exposé au grand jour c'est-à-dire que sànq wax nga fii ne politique du lépp la exposé je te dire xam nga un bras droits ne mu ëpp solo daanaka seen groupe boobu c' est Barthélémy Dias est-ce xam nga waxuma législative de loolu les élections locales liste bi ñu ko joxoon Yewwi Askan bi nga xam ne war a nekk les conseillers municipaux liste bi ñu mhm. validé woon c'est-à-dire que liste bi ñu validé woon jox ko Barthélémy Dias xam nga da ko altéré jël ko changé dugal listam ah bon il a changé sunu responsable yi nekk Mermoz Sacré-Cœur remonté trop Ousmane Sonko woo leen pour waxtaan ak ñoom pour ñu bàyyi mu sedd yu mel noonu on l'a subi plusieurs fois c'est-à-dire que lii laa la mën a exposé xam nga je t'ai dit waxoon naa ko avertir naa ko léegi mais dama ne liste bi yeewi askan yëpp toog waxtaan ne lii mooy listu Mermoz Sacré-Cœur mu ngi nii mu jël liste bi téye ko changé ko ak ay nitam ñun ñu woosu na ay nit defal leen ne muñ leen te kenn déggul fenn ñu wax ko c'est-à-dire que on a vécu yu mel nii plusieurs fois encore une fois je vais dire xam nga Khalifa Sall un jour toog nañ sëriñ bi non Fadilou c'est mon fils et cetera man mais dama lay wax fu ñu jaar et puis ñuy def jaru ko yaa ngi de waxtaan bi mooy ni ñu tudd leen sax mais c'est pas des choses qui m'intéressent c'est pourquoi parce que taxul ñun fu ñu war a avancer ñu fay avancer taxul li ñu war a am en politique ñu koy am mais dama lay wax rek on a subi beaucoup jël hauteur